Auchan te yëg naa ni sénégalais ku ci nekk yëg nga ci sa bopp ndax euh, mbir la moo xam ni loo waroon a dem di ci jànkonte ak coono premièrement boo musaan dugg marché problème bi ngay njëkk am mooy stationnement fexe nañ ba teggal ci nit ñi lu bëree bay beneen bi ci des mooy wàcc ci barab di am looy jënd di ko wër. léegi ci benn place ngay taxaw ñu climatiser la ko accompagner la dalal la te loolu lañ soxla ci un agent commercial accueil parce que nit ki bu ñëwee di jënd li nga war a def mooy nax ko pour lekk xaalisam noo koy naxee mooy fexeel ba mu jënd ba jënd lu mu bëggul liggéey boobu nag ci la Auchan nekk ñuy ñaan yàlla yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na yàlla defal leen la yal na yàlla barkeel liggéey bi te defe naa ni ñi ngi am yéene ubbi benn ci Tiwaawan ñu ñaan yal na ko yàlla mottali su fekkee daal am na leen luñ ciy wax mooy bu ñu sañoon bi muy ubbi Tiwaawan mooy ub mooy ëpp mooy ëpp surface bi nga xam moo nekk Dakar. liñ fi indi ci xaalis war na tolloo 5 euh, millions. à peu près ci denrée alimentaire waa te dañ doon wax rek ni xeeb nañ ko bu ñu sañoon at bu jot lépp lu fi nekk rek ci wàllu dund Ocean moko yanu tolu na ci ci tonu tolu 5 tonu ciep donc tolu na ci 1200 litres d'huile euh tolu ci euh sucre lu tolo 1500 kg donc ak euh, litre 10 litres yu 96 indi nañ ci tamit 200 euh, bouteilles euh, de 10 litres donc 200 bouteilles c'est 2000 litres donc loolu ñu loolu teraanga la boo xam ni euh, jarta xeeb wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gërëm suñu PDG euh, di ci sant yàlla bu baax a baax a baax. boo santul euh, nit mënoo sant yàlla dañuy jiital ci sant bi suñu DG directeur Laurent Leclerc ci mission bi nga xam ne jox nañu ko ñu ñëw ci turu jullit yi nga xam ne ñoo nekk au Auchan. pour participer ci li nga xam ni moom mooy euh, guddi yonant bi euh, participer ci ci wàllu euh, moyen ci xalaat waaye tamit ci wàllu dimbali dimbaliko ci wàllu gan yi nga xam ne ñoom la ñuy recevoir te defu ko dara pour wut ci dara lu dul E, dimbalee ko jullit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Auchan mu nekk sax ci suñu entreprise waaye nekk tamit sax ci entreprise u Sénégal yëpp donc Auchan nag comme niñ ko xamee rek euh, société la boo xam ni euh, lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu sociale ak environnement dañ ciy œuvrer te tey loolu la yàlla dogal euh, ñun ñu jiital ñu ñu ñëw dugal suñu participation ci côté social boobu noonu ñëw ci gàmmu Tiwaawan euh, yàlla def ni euh, Seydi Hadji Malick lii mu woote jullit ñëpp bokk ko ñun dañoo ñëw dugal ci suñu loxo ndax dañoo jàppee suñu bopp ne ci jullit ñi lañ bokk beneen bi tamit moom mooy dañoo bëggoon profité ci occasion bi pour wax ni rek euh, Auchan mi ngi continuer euh, développement am ba fu mu nekk nii am nañ yéene sax ci at bi di ñëw ni ko Pape Dieye waxee léegi léegi ci kanamu sëriñ bi euh, ubbi Auchan fii Tiwaawan donc te buñ ko ubbee tamit euh, li ëpp ci emploi yi nga xam ni moom la ñuy créer ñaan nañ yàlla mu nekk doomu Tivaouane donc loolu tamit euh, lu ñuy rafetlu la euh, ci développement bi nga xam ne amal nañ ko ci këru diine yi waaye commencer par Tivaouane ñu def loo xam ni vraiment day participer ci développement dëkk bi di jottali tamit. message u sëriñ bi ci ñaan bi nga xam ne ñaanal na ko groupe Auchan euh, ak rafetlu bi mu rafetlu teraanga gi nga xam ne moom lañ fi indi donc di ko ñu it ñu koy ñaanal yàlla gudd fan ñaanal ko yàlla wér ñaan yi ñu ñaanal nag pour ñu yokku euh, pour suñu activité gën a dem ci kanam ñun ñu ngi koy ñaanal moom it gudd fan ak euh, ndam ci organisation yi nga xam ne moom la yàlla yëkkati teg ko ci loxoom